ñu ngi ci juzu saani bi ñu yor taxqiq al ustaz Mouhamad Rabi Gannoun ñu ngi ci juzu saani page huit cent vingt deux ñu yor taxqiq Seydil Imam Cheikh Tidiane Alioune Cissé ñu ngi toll ci page trois cent trente cinq ci juzu saani مولانا رضي الله عنه وقد ورد سؤال سيد علي الحرازم وقد ورد سؤال على سيدنا رضي الله عنه mooy am na laaj bu rot ci Mawlana radiallahu anhu wa nafsuhu li mooy yaxab laaj bi waaye daf ko laaj ne ko maa taqulu alulamaau ahlu alnadari walbasira wa kamaali almaarifati bi rusumi alsharci wa maqasidihi fi zawjatin zati ismatin saxihatin sharcan li zawjiha fi baladin la xaakima fiha farrat min zawjiha bi gayri dararin yujibu firaraha ila daari ahliha wa talaba zawjuha min ahliha radda zawjatihi ila daarihi fa manaxuha minhu zulman mu ne lan la boroom xam-xam yu wax boroom xam-xam yi nga xam ne boroom gis-gis lañ ñu am xam gu mat sëkk ci yaxu sharia ak jubluwaayu shariatu maanaam jàng yax wi xam lam jublu ci jigéen joo xam ne dafa nekk ci kilifteefu jëkkëram muy soxna ci borom këram nekk ak moom ci benn dëkk boo xam ne sharia duñ ko fa àtte mu jékki-jékki génn kër gi dem ci lu dul ndigalu jëkkëram te itamit duut lor buñ ko lor mu génn dem ci ay kër këri kër ndeyam ak baayam borom këram sàkku ci ndeyam ak baayam pour ñu delloo si ko ñu fere ko zulman ngir togn ko rek ndax haythu la hakima yunsifuhu minha ndax amul kat bu wara atte lool فلما كثر النزاع بين الزوجة وأهلها ما خمين قتشو بي نك بري نا سي ديغنتي سخنا سي اك وا كرم والزوج المذكور اك بروم كرم بوب ني تود قام جماعة من أهل تلك القرية أم بولو مجوك بوكو تي وا دك با wa awqaawu talaaqa ala tilka zawjati ñu daal di sàbbil am pase ci boobule soxna li xëyri izni zawjiha ci lu dul ndigalul borom këram mutamidina fi nazarihim ñu sukkandiku ci seen gis-gis biñ amoon rek ala wujubi sulhi wa talaaqi dafan lil musaajara ci ne dafa war ci ñoom ñu yéwénoo gi nag mooy tas sëy bi ngir jañ al musaajara المفضيه الى القتال وخمن منا اندي ريانت اندامت بو بصحي والزوج دائم الإباية عن الرضا بذلك الطلاق تبرم كرجي موم بنا نانغو بوبل طلاق ثم بعد ايام جناو اي فن هدأ النزاع قتشو بدال وتراد الزوج المذكور مع اهل المرأة برم كرجي دادي ديغو اك جابوتو سوحنتي wa ruddat ilayhi zawjatu ñu delloo ko bo soxnaam li daar yi ci këram wa huwa yactaqidu adama talaqiha moom mi ngi jàpp ni fase woowu tabbiwul bal innama rajaat ilayhi bi duni talaqin ndax dafa moom lim jàpp mooy dafa dellu si moom ci lu duwut fase li kawni yi lam yarda bi talaqil jamaa ndax moom gërëmutoon benn yoon fase boobu nga xam ne mbooloo ma ñoo ko tabbiloon wa ahlul mar'ati waa kër soxna si tamit yaataqiduuna anna ruddat ilayhi bi isri talaaqin ñoom ñi ngi jàpp ni dañ ko delloo ci buuma talaaq maanaam ci ci ci fekk mi ngi ci ab passé wahum mu'tadduuna bii ñu koy kontel ay idda summa baada muddatin ginnaaw ab diir harabat aydan ila daari ahliha soxna si dem ci kër mbokkam ya bi gayri dararin min az-zawji ci lu duut benn lor tukkee ci borom këram mu'taqidatan hiya wa ahluha annahu la ismata alayha li zawjiha mu jàpp ci xelam maanaam mu fas ci xelam moom ak waa këram yépp ne annahu la ismata alayha li zawjiha nekkatul ci kilifteefu borom këram almazkuuri biñ tudd ndax ñoom jàpp nañ ni li sihati talaaqil jamaati fi zamihim ci liñ njortu ñoom dañoo jàpp njortu ni jamaa ba mbooloo moomu fase boobu ñu tàbbaloon lu wér la summa baada ayaam ginnaaw ay fan nag taraada zawjul mazkur ma ahliha ñu daal di déggoowaat seen biir ñu delloo ko rudduha ila daarihi ñu delloo ko këram fa baqiyat bi daari zawjiha muddatan aydan mu toogaat fa ab biir summa harabat mu dawaat jëmaat kër ay way juram ci lu dul lor bu tukkee ci borom këram loolu lépp nag mi ngi fas moom ak njabootam ne nekkatul ci isma zawjam njottu ni salaat bi mbooloo mi defoon loolu lu wér la intaha lii mooy laaj bi intaha suwaal mu ne fa ajaaba rab sayiduna radiallahu bi ma nas si daaj xaraasim ne laaj bii lañu rotal bi Cheikh Tidiane mu tontu ci li nga xam ne mooy yaxu tontu mu ne ilam xamal ni ann hada sual bi la laaj muxtawin alaa salaasati fusul dafa làmboo ñetti تقل آه. الفصل الاول تقلق نك في صحه تلاقي الجماعه المذكوره من اديو سي نخ مولو موم فاسي موم نوي جيما تابال ويرنا وعدم صحته ولا وير الفصل الثاني نال التقلب في جواز تطليق المرأة من زوجها بغير رضاه لا دينا بجان في جيجين ñu tas sëyam te boroom këram àndut ci ida kaana baqaauha fi ismati yuaddi ila alqitaal bu fekkee des ci boroom këram dafay indi ab rayante wal qatl taxqiqan wa adami jawaasihi ndax loolu dagan na daal wala daganul wal alfaslu saalis ñetteelu teqale fi lkalaami ala raddi zawjati li zawjiha baada iqaai talaaqi almazkur moo jëm ci wax ji ñu war a wax ci delloo soxna ci borom këram ginnaaw bañ tàbbilee fase woowu ñuy tudd مهروبها معتدة بالطلاق الأول تبقى مدعو غير جابب عدة في طلاق ملكبة نفتي مبحث يلا من أما الجواب فأما الجواب عن الأول تنتنا كلاج ملكبي أن عصمة الزوج على زوجته الشرعية لا تنحل إلا بموت الزوج أو طلاقه صريحا أو كناية أو تطبيق الحاكم وهو القاضي أو السلطان الشرعي شروطه min wuquci darari alsaqil aw alxafif daaimi min alzawji la geyr mu ne ismatu zawji ala zawjatihi kilifteefu boroom kër ci soxnaam loolu sharia moo ko yoonal laa tanxallu illaa bi mawtin du dagg mukk lu duut boroom kër gi génn àdduna wala mu fase soxnaam ci kàddu yu leer maanaam fase naa la aw kinaayatan wala côté boo xam ne daf ko kinaaya maanaam daf ko maanaam lépp bépp xeetu baat boo xam ne day tekki fase rek bu ko tuddee dañ ko nangu aw tatliqul xaakim wala sax dëkk boo xam ne am na attekatu lislaam mu gis ni say bii dootul dox mu tas kooku nag mooy xaadi bi mooy ki nga xam ne moo yor pouvoiru lislaam waaye daf koy def bi shurutihi ci ay chartam min wuqu'i darari saqil su fekkee lor wu maanaam danger daal am na أو الخفيف الدائم من الزوج خير ولا لو خمنا لور لا ولور هو يفلا هذا في صح جم تبرم كرب من وما سوى هذه الأمور لدول نتي ما تدونك لا تنحل فيها عصمة الزوج عن زوجته شرعا كان دوتي فتي سيب جامبور في شريعة فإذا عرف هذا لم خمس من لينك فطلاق الجماعة باطل أفهم بولو مومو لنين لا منام تبيو لا يلتفت إليه شرعا بنكو جسر شرعا لأن كل من طلق زوجة غيره بغير إذن زوجها فهو فضولي وطلاق الفضولي كبيعه موقوف على إجازة من بيده العصمة إن أجازه صح وإن بطل ما لم يكن المطلق لزوجة غيره حاكما شرعا بسبب ضرر من الزوج يبيح تطليق الزوجة منه بغير اختيار مهنا أه كيف بكو خمنا يعني فتح جبر جامبر شلو دون ديجلا لول لني تبه طلاق الفضولي من رك لو خمنا دين كوي جاي اكسبوزك لكنك dañ koy exposé ala ijazati man bi yadihi al isma ci loxol ki nga xam ne moom moo yor baat bi su ko daganalee maanaam su su nangoo fase woowu mu wér bu du loolu fase boobu du du tabbi xanaa boog allahuma illa mu nekk ki nga xam ne moo jël kilifteefam di fase jabaru jaambur boobu nekk xaakim nekk ab attekat ci sharia boo xam ne daf koy def ngir sauver mm, borom kër gi wala soxna si ci lu dul seen tànneef ñoom kon nag fa talaqul xaakimi ina xiina isin paseb attekat bi bu boobaa saxiixun lu wér la bi ijmail umma ci li borom xam-xam bi yëpp dëppoo wa amma siwal xaakim ku dul xaakim bi nag fala sabila lahu ila tatliqi zawjati l xayri bi xayri iznihi amul benn anam bu mën a jaar pour fase jabaru jàmbur ci lu dul ndigalu كوب ورمكركوب فحينئذ طلاق الجماعة لم يصادف محلا ndax kon bu boobaa nag fase boobu mbooloo bi defoon du tàbbi is laysu fi martabatil xaakim ndax ñoom tooguñu ci darajay xaakim alladi bi nga xam ne lahu nazaru moom moo yor gis-gis gi walam yakun zawju ajaza talaqaha te borom kër gi duut moo permettre moo leen permettre ngir ñu dogal fase boobu fa bahara ibtaalu talaqil jamaa kon nag day leer nañ ne talaaqul jamaati boobu talaaq la boo xam ne bu bu talaaq bu wérut la fase bu wérut la charan ci sharia li bayaani annahum fuduliyun ndax leer gim leer ni ñoom ay fuduliyun lañ kon fala xukma lahum fi talaaq amuñu benn eh, droit ci atte ci ci fase jabar jàmbur وأما الجواب الثاني عن الفصل الثاني تنت من هارل بتنارل تقلب هو جواز تطليق المرأة من زواج زوجها للحاكم بغير ضرر من الزوج ميونال بيونال فصل جيين جامبور مونيل اتكات بي سي لودوت لور و خامن بايكو سي بروم لكن بقاؤها في عصمته يفضي الى القتل و بو ديفيت مننا اندي رايانته والقتال من نايندي مانام فتنه من نايندي رايانتي وعدم جوازه دخلوا دغان ولا دغان والله الموفق للصواب من يعلم خملني ان خملني ان خوف وقوع القتل والقتال على دوام عصمه زوجي شرعي على زوجته لا يوجب تطليق الزوجه المذكوره من زوجها ما لم يقترن بضرر من الزوج يبيح التطليق منه بحكم الحاكم لا غير مولانا شاتيجان رضي الله عنه نه خمال رجل لور تبك لور يعني فتنة ولا ريانت غسخ ci jigéen ji nga xam ne dafa nekk ci suufu kilifteeku borom këram sharia mayee leen ñu sëy ragal loru boobu rek du waral mboo maanaam xaakim bi mën a fase min zawjiha maalam yuqtarak taran fekk lënkalewuñ ko bi dararin min azawji ci lor woo xam ne mi ngi tukkee ci borom kër gi yu biixu tatliqa boo xam ne dina daganal ab tatliqa ab fase min hu bu tukkee ci moom bi xukmil xaakimi ci atteb attekat bi laa xeyru du ci kenn li kawni linxilaali ism li kawni inxilaali ismati zawji bi xeyri ixtiyaarihi ndax euh, maanaam kilifteefu ndax nekk bi nga xam ne kilifteefu boroom kër gi maanaam fecci sëy woowu ci ci boroom kër gi dañ ko moom mi nga xam ne moo yilif soxna si dañ ko def ci lu dul tànneefam wa bi gayri dararin def ko ci lu dul lor illaa xawfa taaddi lu dul ragal ni loolu mën naa am عن زوجته تكيتي وليس soxnaam laa maxalla lahu fi rusumi shari maanaam Cheikh Tidiane ne loolu amul place ci téere sharia yi laa kitaaban duwut ci alquran wala sunnatan duwut ci sunna wala fi kutubil furo duwut ci téere yi nga xam ne ñooy téere yi leeral banqaasu sharia fa in qaala qaailun mu ne ndeem kenn ci waxkat yi wax na ni inna safka dimaai min aazami alfasaadi fi l ard tuur deret bokk na ci yàqu-yàqu yi gën a rëy ci kaw suuf wa min aadami daruraat bokk na ci daruraatu charia maanaam yi mënta ñàkk ci charia yi xaysu la xaakima yarfauhu wa iqaau talaaqi karhan ala ala ala zawji dafan li safki dima mu ne ñëpp xam nañ ni tuur deret bokk na ci daruriyaatu charia yi nga xam ne bu fi xaakim nekkoon ñu gis ni am ñu gis ni xaakim boobu jarul mooy xaar mbir mi di yàgg foofu bay tàbbi kon nag wa iqaau talaaqi tàbbil fase gi karhan cig force ala zawji ci borom kër gi daf an li safki dima ngir jañ li nga xam ne mooy tuur deret huwa amrun axafu mooy mbir mu gën a woyof min safki dima ci tuur deret wartikaabu axafi dararayni awla nañ bu ñaari lor teewee tànn lor bi gën a néew moo gën a yaay mu ne am na ñuy wax lool mu ne qul naa bu ñu waxee lool nag ñun dañ leen di wax ni na hada nazara batilun boobu la gis-gis neen la wa bayaanuhu anna salaata xiina idin talaaqu ihra ikrar bu boobaa maanaam li li ñuy leeralee ni gis-gis boobu gis-gis bu neen la mooy passé bi ci jamono jooju day nekk passé forcé te fasem forcé ci sharia baatil la laa yalzamu ma sabata anhu du war mukk ci li comme niñ ko xamee mu sax jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la talaqa fi iglaq kenn du fase ci iglaq iglaq mooy force wal iglaqu huwa al eh, ikrah mooy ikrah ikrah mooy force force da ngay jabar loolu kenn du ko wax nit fase boobu yi tamit du tàbbi buñ ko defee tamit du wér fa in qaala al muaaridu su fekkee kii opposé wu dafa taxaw wax ne anna talaaq alxaakim bi darari bi xëyri isni zawji ikraahun mu ne faseb attekat bi ci lor ci lu duwut ndigalal boroom kër gi force la wa talaaqul talaaqul ikraahi baatilun te fasem forcé neen la fa kayfa saxa talaaqul xaakim bi darar nan la fasem attekat bi di wéree ànd ak lor mawlana cheikh tidiane ne qul naa ñu ne ko inna talaqa alxaakimi bi darari muttabiun li amrillah ñu ne ko parce que bi nga xam ne xaakim bi tàbbal na ko ci loolu daf ko def ngir topp diglay borom bi tabaraka wa taala qaala allahu azza wa jalla yàlla azza wa jalla wax na ni e, attalaaqu moom ñaar la fa imsaakun bi maaruf fa imsaak maanaam nga téye ko ci njëkk aw tasrihun bi ihsaan wala nga bàyyi ko ci njëkk mu dellu waxaat ni fa iza tallaqtumu nisaa euh, mu ne su fekkee yéen a ngi fase seeni soxna mu ne wa iza tallaqtumu nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna maanaam buñ demee ba matal seen ab ab fa amsikuhunna bi maarufin maanaam idda bi bu matee na ngeen leen téye ci njëkk aw sarrihuhunna bi maarufin wala ngeen bàyyi leen ñu dem ci njëkk wala tumsikuhunna bu leen leen fa téye ngir lor leen li taatadu ngir ñuy eh, li taatadu ngir ngeen di jalgati wa man yafal dalika faqad zalama képp ku def loolu rek tooñ nga sa bopp loolu la ko mawlana aaya boobu la mawlana cheikh tidiane radiallahu anhu indi léegi nag mu ne wa hada wa in kaana fi masalati rajaa aaya aaya bii bu même bu fekkee ci masala rajaa la maanaam talaaqu rajaa inda kamalil idda su fekkee idda bi mat na madaratun ak ak lor la li zawjati ci soxna si min zawja bu tukkee ci borom këram fa huwa mutawaawilu jamia wujuhil imsaaki bi darar moom lam mboolem anam yi nga xam ne anam ak tiye ak lor mu bañ a dem ci kawam la yàlla wax na ci alquran ne wa ashiruhunna bil maaruf na ngen dundanteeg ñoom ci njëkk fa man xaalafa amrallahi subhanahu képp ku wuuteeg mbiram digleeg yàlla

fate sim for loolu neen la ida lam yakun min alxaakimi an dararin min azawji su fekkee xaakim euh, bi attekat bi defut ko def woo xam ne dafay tukkee ci lor woo xam ne dafay jugee ci borom kër gi wa aydan bate tey ida tulliqatil mar'a ndem fase nañ jigéen min fase nañ zawjiha ci borom këram bi gayri ixtiyaarihi ci lu dul tànneefam duuna dararin lu dul lor laxiqaha min zawjiha bal li ajli maanaam su dul lor boo xam ne jëlee na ko ci borom këram bal li ajli xawfil qatli dañ ko def rek ngir ragal fitna wal qitaal ak rayante wa daf an lil fasaadi bihima ak jañal leen yàqu-yàqu ñoom ñaar fa inna farjaha xiina idin laa yaxillu watuhu bu boobaa nag péyam du dagan ci moom mu di sëy bi xeyri zawjiha laa yaxillu watuhu bi gayri zawjiha muy sëye kuduut borom këram alladi yi nga xam ne tulliqat minhu fasee nañ ko ci moom ida tazawajat baada zalika su amee beneen borom kër fa innaha baqiyatun fi ismati l awal kooku du borom këram ki ko yoroon mooy borom këram wala sabila li talaaqiha minhu te kenn mënu tas sëy boobu fa hiya maanaam bu fekkee def na ay pexe te mënut koo tas fa hiya muhsanatun bi ismati moom ba tey ku ñoŋewu la ku ku saŋewu la ci كليسيف بروم كير والله تعالى حرم نكاح المحصنات من النساء تيالا دغ حراملنا ني تك جيان جو امنا دا نيك سي بومو سي قال سبحانه وتعالى يلا مكرم واخنا ني بعد ان ذكر محرمات النكاح جنا بام تودي حرام سي سي واخنا سي والمحصنات من النساء اك واي سانيوي سي جيجن ني سانيو نك بوكو ديجي موي جيجن جو خامني جيجن جو ام بروم كير فإن قال المعارض من أجي كونتر بنك بتحوي دي جيم كونتست سمو وحجي لأنها ليست محسنة نجيل جوج دود كسنيو بل إنما طلقناها خوفا من وقوع القتل والقتال وايكي تنيو تستي بنجر رجل تبك فتنة ولا ريان فهي منحلة في العصمة ممنك ku dañ la ci kilifteeku borom këram de qulna lahu manana cheikh jann ñu قد قدمنا الوجوه التي تنحل بها العصمة وليست هذه المسألة منها جيتلون أنا بيغا خمنا سلاني فكيس كيلستيف جي في بروم كيس واي دور في مسألة دي وقد قدمنا أن لا وجود لهذه المسألة في الشرع أصلا وهن نجلن مسألة دي أمود أصل كسلا كسريا ولا قائل بها من الأئمة amul benn borom xam-xam bu ci wax kon fa talaaqu li ajliha baatil fase ngir loolu rek dafay nekk neen mu ne wa amma al jawaabu an il fasli salis tontu ci ñetteelu faslu bi nag fa yugni anhu ma qaddamnaahu fi jawaabil faslayn dina doy rek liñ jiital ci tontu ñaari teqal yu njëkk ya wallahu almuwafiqu lissawaab intaha min imlaayi sayidina radiallahu anhu muhibban muhibbina